sunu mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen émission round-up de l'actualité comme ni ñu koy faral di defee ay bis yu nekk seen émission dañu koy jagleel élection présidentielle bi dinañu waxtaanee mbiru Amadou Ba mi nga xam ne dafa mujjee dagg ay tournéem lu tax waa Bennoo Bokk Yaakaar seetaan ko dinañu xuus ci laaj bi Karim wadd ak ay ñoñam ndërmeelu nañu Cour suprême daa gàntal seen recours bi doon attaqué dëkk bi convoqué collège bi bokk na ci lu ñu nar a waxtaanee mooy génn prison bu Ousmane ko ak Bassirou Diomaye Faye ana nu ñu nar a amalee seen campagne. comme ni ñu leen ko waxee ci ndorteelu émission bi tey round up spécial élection présidentielle lay doon daanaka une semaine moo des pour ñu amal élection présidentielle bi ba tax na ku nekk def sab wàccuwaay kii di Amadou Ba moom nag ay meeting yu mu doon amal waa APR dañu ko seetaan. kenn demul si moom loolu nag tax na ba mu samp ay laaj ci presse bi ndax Macky Sall moo ngi wéy di ànd ak Amadou Ba ndayum bi liggi keroog dafa mujjee dagg ay tournée yu mu doon amal fële ca tuwaawan pour laaj Macky Sall lan moo tax responsable affaire yi tëye seen loxo waxtaan bi nag tàngoon na waaye biñ ci génnee lañu woote mooy li ñuy wax secrétariat exécutif national bu APR ñoom nag gannaaw ba ñu sante responsable yi yépp di may nopp seen njiit waa APR fàttali nañu ni tànneef bi ñu tànn Amadou Ba ñoom ànduñu ci wala ñoom nee nañu dégg nañu ndogal lu président bi wax pour ñu jàppale seen candidat kii di ministre de la culture moo njëkk a génn jëmmal loolu Aliou saw moom ab communiqué la siiwal di wax ni pare na pour jàppale Amadou Ba ginnaaw loolu gis nañu kii di Abdoulaye Daouda jàlloo génn dem teeru Amadou Ba fële ca Fuuta Thérèse Faye tamit wax na lu ni mel Amadou moom Amadou Ba moom yamul ci waa Bennoo rekk ndax woo na waa PDS pour ñu jàppale ko moom sax nee na bu ñu ko jàppalee ñu bokk gouverner waa PDS nag ñoom nee nañu ci dimanche bi dinañu wax ki ñu nar a jàppale balaa boobu nag ñu fàttali leen ni waa PDS jubóowuñu ak waa PASTEF ñoom Amadou Ba lañu joxoñ baaraamu tuuma ci liy génn Karim Wade ci list candidat yi est-ce que waa PDS dañuy ànd ak waa taxawu wala dañuy bank seen loxo dimanche dina ci ci xam dara. ñu desandi ci PDS ñoom nag Cour suprême daal dina jël dogal PDS mi nga xam ne dafa décider attaquer lii di décret bi convoqué collège électoral bi moom dafa mujjee ndërmeelu waa cour suprême nag gannaaw ba mu nangoo saytu dossier en procédure d'urgence bi moom nee na recours PDS bi c'est irrecevable ndax nee na conseil constitutionnel ñoo war a saytu lépp lu jëm ci wàllum élection loolu nag day tax élection bi continuer si loolu la waa PDS doon ñaxtu Karim Wade ak ay ñoñam dañoo jàpp ni collège électoral bi dañu ko war a convoquer 80 jours balaa bésu élection bi ñoom tamit nee nañu campagne électorale dafa war a nekk si 21 jours te bi yoon nag douze jours kese ñu fàttali nag li tax yenn ci délai yi respecté wuñu ko du dara lu Karim Wade mii ñu écarté ndax dafa am beneen nationalité bu bokkul ak bu Sénégal ci ginnaaw bi lañu commission d'enquête parlementaire Cheikh Tidiane Ndiaye ak Cheikh Koulibaly ñaari juge yi conseil constitutionnel ñoom déposé nañu sen plainte te loolu moo enquête parlementaire bi deful ñu ndar keppe raw nëb bi ak waa Pastef kii di Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko génn nañu prison xibaar bi ba mu jibee patriote yi dañoo génn di féete ndakaar foo sànni mbàttu mu toj ndax bari nit Cap Manuel ba cité kër góor gi militant Ousmane Sonko yi dañoo génn di leen teeru kii di Bassirou Diomaye fay moo ànd ak xale yi Sonko moom point E la mujjee fanaan Bassirou Diomaye fay ak Sonko daal nañuy janoo ak taskatu xibaar yi foofu nag Ousmane Sonko nangu na ni waxtaan am na ci digganteem ak Macky Sall waxtaan bi nag ci trois points la muy bi. amnesi be ak djal gout be. Son konnen a, amoul ben nou poen bou mou dakor ak maki sal. Son konnen a, li waral mou wak ak maki, nen a, mwen, chale yi nekon ti prizon yi, sen responsabilite mwen yu gen ne len. moom nag nee na mësul d'accord pour ñu voter loi amnistie bi nee na moo wax biram Souleye Diop mu laaj ministre de la justice ndax bakkan yi faatu dañu koy boole ci amnistie bi loolu moo tax ñu voter contre son ko nag yàq na lu mel ni xamee Amadou Ba jiiñ na ko luubal kii di Bassirou Diomaye fay nag moom nee na amal na sax waxtaan ak Amadou Sall mii di doom ci Macky sàll pour mu waxtaan ak papaam waaye mu jéewul loolu moo gën a fës ci xibaar yi ñu jox leen dig daje ci yeneeni émission jërë ngeen jëf